waaw fii son yaa ngi si jàmm si loo nekk waaw dama la soxla boo gisee sama message nga def ma signe. waa Ndiaye Ndiaye maa ngi fi maa ngi si jàmm baax a baax alhamdulilah kon yaa ngi Sénégal yaa ngi Sénégal. waaw maa ngi Sénégal maa ngi Sénégal waaw ça tombe enfin dama la soxla woon sax. mais ça va ça va sant yàlla waaw dama la soxla woon soxla bu urgent. waaw bu am na tuuti temps ñu waxtaan. ah alhamdulilah alhamdulilah Ndiaye yaakaar naa ni day voyage bi méttiwul daal. ah Ndiaye loolu loolu amul benn problème loolu amul benn problème yow yow sama Ndiaye nga waaw loo bëgg rek maa ngi fii maa ngi fii yow rek laay déglu. ah Ndiaye lii moom li ñu naan waxatu bu dajeeg gerte la man mii sax dama laa soxla woon. parce que xam naa ne umpale dama damay tak soxna fa ni ni ni rek waaw loolu loolu bu wonna tamen ñu waxtan ci dal wa effectivement euh, ci mariage bobu nonu mom la bëggona a ak yow parce que dégg na ko quoi wa wa yakar na ni di nga déglu bu baax li ma lay wax parce que yow xam nga ni bëggaluma la lu bon andi yaay may may jégalu bu baax nag si yeex a tontu bi ndax suñu suñu connexion bi daal dafa xaw a yeex waaw waaw moo tax daal may xaw a jël temps si si tontu gi waaye ñu ngi koy tuub baax a baax a baax ah yow yow sama nijaay nga sama nijaay nga amul benn problème yow yow loo loo bugg ñu waxtaanee ko rek man pare naa pour déglu la waaw. waa ci sa xarit Babacar dafa am lu ma wax waa te li ma wax loolu moom dafa nar a tilimal deru askan bi. amna lo xamni nak duma ko nangu parce que tilima sunu deru famille bi nga bëgg def ta lolu man duma ko nangu man sa nijaay wa su fekke xale bi jigen bi li ñuy wax ci mom deug la ba ko mu dem parce que xale bi ni li ñuy wax ci mom salté na trop trop lolu mom day yaq deru famille bi te yow xam nga fiñu bokk yow ci yax bu nga yax bu mag lañu bokk kon gis nga xale boobu noonu li ñuy wax ci moom ak ñu mu tëddal ñu bëri boo ko jëlee di nga saltel teru famille bi te famille bi dootul jarati dara te j'espère que yaa may dégg bul foog ni sa papa nekku fi rek da nga war a def lu la neex da nga war a dégg sa kilifa yi mais lijaay lijaay fàtte xaju fi manqué wu ma la respect nag dañuy waxtaan rek mais sa doom faatu Mom ambulon nañ ko fi te buñ ko ëmbalee ba paré maye nga ko xana da faté lolu li yaay babakar mom ay ay mbiram mom mom, dimbali ma ci rek koku mom bëggutuma dégg dara dara lu jëm ci mom te bul faté na nak sama jaay nga amna ci yo xamantani xamante ni ñu ag fa waaw bañ bañ koy waxante sax parce que joxna la cër joxna la respect. lam yow man ngay ci ton bobu non da nga faté sa nijaay la nga may wax ay faatu ay affaire yi ni et duma sa moroma est ce que yang may deg mais yow oh, ti te prend pour qui ba ngay wax ak man ci ton bi waaye fëtce du manke nga ma respect ba pare léegi lan ngay xaar pour wax ma li nga bëgg wax te dina la xamal lenn sa sey yag mati du musa am nang ko def sa bop ah lijay da nah, melni xam nga turam de da do ya ko yobon auberge ñaar yoon xam na ko de yaay même yow mëno tax ma baye xalé bi ki sama sama aduna la dama ko bëgg lolu kenn mënu ci dara dara dara dara momla la bëgg mom lay tak ta xam nga ne li nga nek sama nijaay moo tax secret yeb waxumako fenn yow rek la ko wax kon indi wata sa xel bu baaxa baax eh lamin lamin lamin kon xale bu jigéen bi dala wax lépp j'espère que comme li nga wax sama diggante ak yow rek la yam waaw dalal dalal xale bu jigéen bi di ko takk lépp loo leen soxla rek wax leen ma ma jox leen te s'il te plaît sutural ma sa papa rek te babakar dof la ma xawma sax lan lay waxe lolu te yakar na ni li nga jàppoon yep bar nga ko j'espère que mero wala mi ma ngi lay woo te liro samay vocal lan mo xew